salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñoo ngi leen nuyu bu baax di leen ziara ñi ngi fii ci bu Bousso ci daara tànneef bi nga xam ne waa Touba ci kanam ñoom ñoo ko taxawal te muy mebeetu daara yu bari yu ñu bëgg a def ci biir Touba ñu doon inauguré nag tey daar yu njëkk ji ñu jàkkaarloo kenn koo xam daa bokk ci kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllu woow te mooy bi nga xam ne moo yor wàllu culture ak wàllu jàngale mi mooy Serigne Saliou Diakhaté ginnaaw bi ñu ko nuyoo rek dañ koy laaj ngir mu andil ñu ay leeral ci daara ji nan lañ ko tërale ak ni nga xamee noonu la ñu fas yéene doxalee daara ji ci liggéey bi incha allah. Ah, ok ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu bari di leen siyaar waa Bichri TV ak Almouridiyyah ak commission communication bu Touba ci kanam yëpp. di leen jox nuyoo scientifique et culturel muy sang su baax fii ñu àndal liggéey bi ci njiital sëñ Mamor mi eh, kilifa eh, commission bi nuyu vice vice vice président bi ak mbooleem nag ay borom xam-xam yi ñu ko àndal. bu dee daara ji ñu nek nak moy daara tanef bu di daara ji ñëk ci daara tanef yi nga xamné daara proximité la manam daara yu fekki njabor gi lay doon ci seeni koñ ñu am sañ-sañu mëna jang euh ndax lolu ak la ci kenn ku nek jang jang ba xam euh, bu dee daara nak euh fi ñu nek moy ñenti classe la jël nga mëna jël ben classe bu nek amna limite moy di gëna bari moy ñaar fukki donga ak juroom la war a jël xaaj bi benn bi muy juróom fukki góor la ñuy doon juróom fukki nekk jigéen donc bi bu yàlla def na ne programme sëñ sëñ Mouhamadou Mountakha bi ñu adapté ci kii bi ci université bi moom la ñu defaraat tàyyi ko ngir mu dëppoo ak ak ak ak ak njàngalem alxuraan li fi am ci njàngalem alxuraan mooy li am ci njàngalem alxuraan njàngalem alxuraan nag moom weesuwut jàng bind bu tooy ak di mokkal li ngay weesu li ñu tuddee nafar a raxas wala li nga weesu isib bi bari nay tur ak di nafar ci li nga weesu li tari nafar Eh, ak di jàng bérif loolu moy jëmmi li li li jëmmi aji jang ji def mi ngoy tambalé 8 h da ba 12 h 30 demi di gonta 3 h ba 18 h lepp daal di jeex budé jangal kat bi nag warna ñew tuti lu ko jitt budé jangalé kat bi sarti ñi rek wax nañ moy day nek jangalé kat bo xamné amna na expérience lu mu néew ne juróomi at nekk programme bi ba tay na ay atam na romb ñaar fi at ak ñaar na nek ku mokkal alxuraan na nek ku ñu xam ci doxalin bu baax na nekk it koo xam ne njàngalem dëkk bi lay jàngale maanaam bu muy dugal xalaatam ci yeneen xalaat yi bu mu koy dugal ci ni muy jàngale yaakaar na loolu leer na ci ni ñu koy waxee euh, jëmmi Touba ci kanam mooy ki koy jël en charge fii payoor gi ñuy tuddee payoor gu baax ci dëkk bi lool fi la ñu tàmbalee ak jàngalekat bi di jëm kaw lépp it Touba ci kana moo koy jël en charge bu dee jëmmi durée bi fi nit kiy jànge bu nay ati xale bi fiy jànge di tàmbale juróom benn at ba fukki at kii def inscription pour bëgg a tàmbali bu dee ko tàmbali jàng lay doon bu dee ko nekkoon ci jeneen daara nag ba ay atam xaw bari mën nañu yóbbu ay atam ba ñaar fukki at ak fukki at ak ñaar maximum bu ko weesoo mooy ñi fi war a mën a jàng bu dee eh, ñi fi war a jàng bu dee jëmmi téere bi bu ci yàlla àndee eh, juróom 767 leçons maanaam eh, juróom ñaar téeméeri bind yu tooy ak juróom benn fukk ak juróom ñaar moom lay jàng ci bind yu tooy bis bi ñu koy ñi ko wax baa bu dee ki fi lay doon ba bis bi mi mën wacc wàcc njàng mi day and ak mokkal manam bis bu mu jàngee ba tari rek bis bu nek bu tari ci suba gi dana tar li mu ci isib bu demee ba am ab lim tàmbalee tari nafar euh, salon nafar bi dañ koy programmé ci li tolloog li wessu nan la koy mën tari tari bu dul yag lu tax du ko fit du ko mën a bu ko defee dinañ koy jangal bind bind ci ci bis bi bu demee ba ci ngoon gi bala muy ñibbi nañ ko talxiin nañ ko sa bind bi mu wara jang suba ngir yàq bañ a lolit parents yi bu demee kër ga comme jangum marax amul fii nañu fexé ba ba muy jang foofu bu télé yow it laata 8h du jot ñu fexé ba muy jang foofu nga xamné bu ñëwé rek naka day tari loolu it danañ ci waxtaan ak parents yi baaxa baax lool mom ci gattal moy programme bi nga xamné mom lañuy jangé ak ñom mu bokk ci programme yi mujj nak bu dé en qualité mom ci qualité yi gëna baax ci njàngalee lay doon inshallah rabbi lool mom mënees nako jëf mo wax nañ ko légui moy xalé bi na am juroom benn juroom benn at lu mu néew new ba ba ba fukki at mooy maximum eh, bu dee ku ma sa nekk faneen lay doon mu bañee jéggi fukki at ak ñaar amul benn misaan yi waaw loolu sëriñ bi nee na sasono ko lu am solo ñu wax ko ndax ñun am nañ laa laa ixaa bii daara jii nag moom daara jii jii waxuñu ne jëmmi programme daara ji ndax am na ay règlement intérieur bu dee jëmmi daara ji nag sëriñ bi nee na loolu moom dañ koy bàyyi ci moom du ñàkk xam naa ne coopéré dugal na ko ci biir Touba ci kanam <laughs> loolu la ñuy wax toute euh, toutes les façons euh, loolu liñ doon def liñ doon tudde ay inscription yi jotewutoon dara ak njàng mi mooy blouson xot ñaari ñaari yoon yi ñu koy xottil ci at mi ak big yi muy soxla ak kaye yi aliba yi bu dee ko war a jàng aliba loolu boo ko xoolee ci xayma loolu lañ tudde woon ay euh, benn rusum bu xam ne bu bu kii lay doon rek waaw waaw bu bu simple lay doon rek ngir mu mën koo joxe bon bu ko defee ñu mën ko cee jëndal yooyu bu dee loolu nag yeneen ñi ngi sant du ñàkk Touba ci kanam am ay commission yu jàmbaare loolu ay social ak yooyu nañ ci taxaw ba li sëñ bi bëgg ñoom ñu ñu ñu def waaw loolu mooy sart sart yi it mooy ki dëkk ci koñ bi it bokk na ci ndax xale bi dañuy bëgg muy jóge fen di jàng si ndax mbir mi mbirum tasaare jàng la waaye wàññi yalwaan ci dëkk bi ndax lii waral yalwaan mooy mën naa am nit ñu mën a dundal seen njaboot ak yu demee noonu yóbbu ko ci daara joo xam ne doo ko jox doo ko jàppale dund ba moom mën na laa gàddul jàngum alxuraan waaye nag gàddul la sa doom ji koy dundal bu bu bu lekk jotee da nga wax mu dem wuti lu mu lekk loolu mooy yelwaan lool nag bu fekkee loolu daara ji da ngay jàng ni ñibbi dana mën a dellu kër baayam di fa añee ka ndekkee ka reere boobaa yelwaan dana gën a wàññeeku ba tey ci ci ci réew mi bu defee jàng daal nekkul accessible nekkul accessible gox bu nekk am am ku lay jàngal yàlla defal nañu it sudu fa ci mbir mi mooy biñ ñëwee tàmbali fii ñu jox ñu béréb bi la ñu njëkk a jox ñu tàmbalee boobu amuñu woon suwaa bi ñu ko defaree ba ci biir nag lañ yëg ne fii ci gere la bokk te sëriñ Tuubaa mbirum jàng ko jàngale euh, sëriñ Mbàkke Buso la ko la ko la ko dénkoon ñaareelu daara yi ñu tàmbaliwaat it ci ni ñu ko waxee bu dee mooy daarul alimul xabir la boobu it sëriñ Daam Abdourahmaan loo mooy wane ne kon lii moom tafaul la bu am am solo ndax ñun ñeenti xibla yi rek la ñu tënkoon ci programme léegi nag di ko yi ñu njëkk jox ñu dëppoo ak li ñu bëgg mën ko faa def ci xibla yi ci côté yi nekk yëpp li lay xam ne sukuru ci ci ñeenti daara yi Serigne Touba rek la ñuy fàttali. waaw kon ñu ngi ci rafet njort bu baax a baax. waaw ñu ngi sant bu baax sous commission bi yore loolu. Euh, ay inspecteur académique ak ñoom Serigne Alaaji Ndiaye am nañ ci solo lool sonn nañ ci lool ca gone yi liggéey bi de doog a tàmbali ndax xale bu nekk dañ lay tijjil document dañ lay tijjil dossier bis bi nga dal euh, sa lépp fa lañ koy dugal mooy tax ñuy def inspection bu ñu ñëwee ci biir daara ji. bu ñu xamee da gone gi kan kan la dal danañ xam semaine bu nekk fan la war a tàmbali fan la war a yem ñu saytu ko moom fan la toll par rapport ak fi mu waroon a toll dana tax ñu mën a xam natt lu tax bu dee njàng mi gën na avancé li ñu ko programmé woon loolu am na ay liggéey yu ñu ciy def ci nattukaay yi ñu yore bu dee gën na koo yees yit ñu xool yées na ko ñu xool euh, ci jàngalekat bi la wala ci élève bi la wala ci lan la ñu mën ko saytu saytu ba lépp di tege ci yoon. bu defee li ñu tuddee yi mën ci am ba inspection académique bi nekk ci. ki sax duñu ragal waxtu mu nek mu bettu ñu pour pour ñëw xol da dañu gisit ne lolu bari na ay daara yoo xam ne am nañ yéene ji mhm. xale bi mën na faa def dir bu yag bo xamne ne du mokkal alxuraan ci dem attestation lolu mën naa dem ba niru tardel ki nga doon jangal lolu lepp it ñu ko ci maytu bu baax waaw jërëjëf jere jere na ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant wa commission euh, communication mhm. ak yéen ñi fi yewal ñëpp di sant wa tuba ci kanam en général euh, di sant bi nak mom dañ koy jaarale ci wa centre ñom wax deug yalla ay borom yi xam-xam nañ ñu jaayante ak seen xam-xam mooy li gën a jafe programme yeeg yëpp dañuy bàyyi seen i itte ñëw jaayante ko def ko ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ndax xam nañ fay gi nekk ci alquran waaw eh, in urid lal islam astatouma tawfiq illa billah alayhi bi unib jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Salih ci leeral yu am solo yooyu day mel ni kon lépp lu waroon a leer rek ci projet bi nga xam ne mooy Daara Tànneef leer na nañ ci mbooleem ni ñuy duggee ci daara ji ni ñu fiy jàngee ak condition yi ñu fiy nekkee lépp rek leer na nañ ñu ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu baril seen kam te nagu liggéey bi jërë jëf jërë jëf macha allah